Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamale wala sax fàttale ki fi jógee weekend bi ñu weesu di Amadou Badiane moom mi la nag bokk na ci ñi daan fësal li nga xam ni mooy aada cosaanuk Indo bokk na ñu ko du njëkk dugal fii ci senegal ndax émission ya mu daan def ci télé yu ci mel ni rek RTS moom mi la nag daan yëngu ci wàllu Indo woowe nekkoon na tamit jegeñaale président Abdou Diouf ba ci kii di Ahmadou euh, Sékou Touré euh, Pape Madiakhaté Sarr moo ñu defalu nataalam xibaaru génnum àddunaam ay bés bii ñu daanaka ñu bëri yëguñu ko ndax nit ki ni mu làkkoo woon ci biir këram ci wetu njabootam di yëngatu ci wàllum fajum cosaanum indo amadu Badiane amadu Khalil Rasoul Badiane di turam dëgg lu yàgg moo ne dey nekk na ko ci kanamu seen bi ndax li mu doon kenn ci njëkk indi aada cosaanu réewu Inde fii ci réewum Sénégal mu nekkoon animateur émission bi ñu daan duppee Écho d'Orient ca atum 1970 ca ORTS jamono ji mu doon RTS amadu Badiane dugal na it yeneen ñaari émission ci Gris programme chaîne nationale de musique et culture de l'Inde Akite l'Inde le pays aux mille visages chaîne inter doon na troupe bu et domi Sénégal yuy top musique le film endu d'upeko les amis de l'Inde bëgg-bëggam bobu moko koy ci 1978 ca Inde ginao ab bourse d'études bi nga Abdou Diouf bu Sénégal mayon ko jamono yoyé ci voyage bobé sax lay fësal Bopam. ci kanamu askanu Inde ginao ab duo bu mu West, Indian, atum 1979. ginnaaw ci am njàngam ba mu ci amee ab CEP kese Amadou Badiane nekkoon na it ci ab boulangerie caporal ca corps du génie militaire bu commis administration ca ministère du développement industriel l'ata, ba ki nekkoon jiitu réew bu Guinée di Sékou Touré teg ko ci wetam mu koy xelal ci wàllum adak cosaan 1973 ba 1976 ni ki démb lañu ko jébal boromam ca sëg ya ca Pikine Pikine ba nga xam ne fa la fekk Amadou Badiane yàlla na ko yàlla yërëm ko